entreprise sénégalaise seen jafe-jafe bi jiitu c'est le problème du financement. Hmm. dama koy commencer ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci li ñuy wax la commande publique. Hmm. tey ji boo jëlee sur un budget presque de sept mille milliards presque quatre mille milliards yëpp boo xoolee commande publique lay dem. donc entreprise yi ñoom ñoo koy exécuté waat. Hmm. mais tey jii li gën a jafe mooy nga am marché ba pare am financement parce que. déjà pour nga am avance de démarage c'est extrêmement difficile bu dul lool yow da góor góorgóorlu jël sa ay moyens bopp soo liggéeyee tuuti ñu war laa defal ay décompte mhm. mais généralement pour nga am paiement boobu dafay jafe tey jii ma lay waxal ni la dette publique kenn xamul aujourd'hui ban ban ban pesanteur lay teg ci entreprise yi mhm. nga toog par exemple six mois supposons nga am marché ci àll bi yóbbu fa sa ay machine nga toog six mois fayuñu la sa say employé commencé di déserter. Mhm. sa matériel commencé di yàqu. loolu moo tax généralement entreprises sénégalaises yu bari on peut comme des entreprises mort-nées. Mhm. da juddu mais daanaka boo juddee da ngay disparaître. boo disparaître accompagnement bi war moom moo amul moo manqué. accompagnement bi war moom moo manqué. Mhm. ñeneen ñi entreprise yu ndaw yi ñi bëgg a ñëw seen difficulté yi ñuy am mooy même accéder au marché. parce que tey euh, champ bi ni ñu ko créé dañu laay wax ne la ñiy joxe marché bu fekkee ne euh, société d'État la. moom mën na am possibilité seuil bi cinquante million la. bu mhm. fekkee ne ci collectivité yi la bu dee travaux trente million la mais loolu war nañ ko mën a yokk pour que entreprise bi bu ñëwee mu gën a mën a gaaw accéder au marché mais bu fekkee ne mbir mi dafa nekk loolu mag ñi di woowee si ñum gëléem. Mhm. nga koy seen muy lang rek te doo ci jot. mais entreprise yi pour ñu jóg dafay jafe.